jour boobu itam il n'est pas capable kooku itam dañ ko takk parce que mënoon na mais le jour mënatul soit amoon na jabar nekk moom ci société bu normal ñu nekk deuxième femme loolu dal ko loolu itam dafa am am na ci kii xam ne waaw kooku dañ ko def xalaat dañ na ko def mais stress itam mën na ko def stress bu bari problème ñàkk dépense problème de facture dépense yi yooyu yëpp itam mën na nekk luy indi nit ci problème de socialité mais ñun xam nga ñun sénégalais culture am problème dem ci gis sociologue waxtaan ak moom ci suñu problème bu doon tubaab moom amee problème mu ndaw day dem gis un sociologue de métier moom mais ñun ñu ñooy les premiers sociologues de la société nit jigéen wala góor ku ci am problème ci ñun lay njëkk daw ñun lay njëkk ñëw sas ah sëriñ bi man dama am problème tel dama am problème tel dama am problème tel nga waxtaan ak moom conseillé ko dalal parce que ñun bu dee problème stress étude consultation loolu ci bokk dañ dalal réconforté zo xam ne ay courage ba yàlla def ci yooyu ay ndam itam dana ci baax parce que faj parce que faj du garab bi kese li ëpp ci doole ci faj 75 pour cent ci faj waxtaan la traité ci bopp la c'est psychologique nit il faut nga waxtaan ak moom gagné confiance am léegi nit ki soo amul confiance am loo ko jox ci garab bu ko faj garab ak feebar bu mu mën a doon docteur bi fekkee yow nangu la recevoir nangu la déglu nangu la déglu nga wax du am importance il faut malade bi ñuy déglu malade waxtaan ak ñoom di gagner seen confiance di jël benn temps de minute di ko sacrifier mais malade bi ñëw nga ball baraj ko préféré ko mu dem xëcc keneen itam loolu itam nekk na itam lu ñu conseillé ci fajkat yaa xam docteur nga yaa xam sëriñ nga yaa xam docteur buy faj ku wéradi la parce que même ku wéradi sax nan la baal ci kàddu gi muy ko ànd ak sago muy dof kooku li ëpp ci li koy faj médecin bi koy faj mooy médecin thérapeute bi koy faj waxtaan lay defal moom muy jalo kon boog lii xam day gaaw a daanu néew la ci na société bi am socialité bu normal fii ci réew mi lu néew waaw danañ dem ci ñaari mbir parce que am na ci nga xam sax dañu ñëw ni ma sëriñ bi man dama sama aw kanamu suivaay bu gàtt borom kanamu suivaay bu gàtt dafa am nga xam moom dafa kanam bi daal dafa tuuti tuuti tuuti moins de trois centimètres xam nga kooku mënul yëngal benn jigéen ci àddina loolu dafa bëri ci société bi itam day ñëw ñu ne ak yokku fi waaye ñu yàlla am na lu mu lay ci loolu itam pour dire vrai yàlla rek moo tax ñu ay yorente bi te dañuy ñëw pour ñu yokkal leen ko parce que capacité bi dafa tuuti trop ñu yokk ko am na yoo xam te non xam nga mooy li xam nga sax ci problème de xam nga say karamu suñu paay nit li koy chargé mooy deret mais bu fekkee sa deret circulé wul na a circulé ah sa karamu suñu kaay itam du mën a egg fu a yegg aussi am na ñoo xam te itam yooyu dafa nekk ay facteur mais comme que suñu liggéey la itam l'essentiel daal euh, am na luñ ci am mais di moom gis bokk ci yéen am ngeen ci dara loo xam ne dafay naan science nangu na ko naan science nangu na ko bu baax a baax a baax nan la nit mën a yokk karaw ah yéen jigéen yéen a ngi nii da ngeen di yokk karaw da ngeen di yokk xef da ngeen di yokk da ngeen di yokk arche da ngeen di yokk ah mais nit ñi moo tax ngeen nangu ne cër yëpp mën nañ ko yokk karaw soyta dañ koy yokk bu wér ci barke yeneen tamit dañ koy yokk bu wér maa la wax ci kenn yàlla ah, am sa bu mat de centimètres mën nañ ko yokk ci dimension bi mu dugg maa ngi fii ci réew mi maa ngi fii ci Dakar géej waaye arrêté ba des dañuy foofu xam nga mooy li ma la wax sànq nee naa am na ci ki xamante ne mën na am kanamu sooy am na ki xamante ne wax ba mu egg mooy ba mu egg dix centimètres aussi ki xamante ne mën na am plus de dix centimètres ak xamante ne mën na faa yegg mooy li sànq yàlla ngay yéem parce mooy xool lu ko neex def ko fi kenn du moo adéquat ak sa yaram ñu xool loolu lii moo adéquat sa yaram ñu defal li adéquat ak sa yaram mais li nga xamante ni adéquatul sa yaram bëgg santul am Sëriñ Tuubaa nee na bëgg santul am bu fekkoon nit ki loo bëgg ñu am ko ah kon yeneen bi yàlla dafa ko nekk lu bëgg ci àddina bëgg santul am te mu taal mooy gën di mën def mais nag toujours nee naa yàlla am na ñu ñu yàlla boole ñi nga xamante ne bu ñu ñëwee si ñun dañ ciy waslu ak jaamu ci yàlla ba yàlla dafa leen si ñun ah lu ñuy jàngale nag lu ñuy jàngale am na li nga xamante ne boo demee université jàng ko fa mokkal ko fa am na xamante ne boo demee daara ja jàng ko fa mokkal ko fa am na xamante ne boo demee ci atelier tey bi jàng ko fa mokkal ko fa formation la rek boo xam fi benn village bu tudd sax foofu la ngay yóbbu bant yow ci lan nga koy am day def ay ñaan wala lu ñuy naka lay demee ja sax ñoom ci ay bant lañ yow waaye man tur yàlla la turu yàlla moo mën lépp li ñu def nee naa la lu daax la kenn du xeebal nit xam-xamam kenn du xeebal nit jàngoroom kenn du xeebal nit bisam waaye man turu yàlla naa yor bu wér bu may liggéey man daal li may wax ak li may jàng ci alxuraan laa ko teg ci yàlla laa ko teg ci yeneen bi ak ci àndalu Sëriñ Tuubaa